ayta jàmbaar nuyu naa maa lay siyaar baay waaw nan nga gisee Ada Fass koñam Ada Fass mi nga xam ne bu jugee jeunesse bi yëpp jug nan nga ko gisee combat bu magam bi muy préparé waaw ñu ngi nuy ñëpp di nuyu cher internet yëpp waaw di wax nii rek ñoo ngeen fi nga xam ne fi la làmb sosoo waaw bu ñu nee làmb Sénégal Fass lañ wax waaw Ada Fass nag mu nekk ndaw boo xam ne voilà il est prometteur muy ndaw boo xam ne Judo face, màggee face, yaroo face, de représenter face, c'est une fierté pour nous waaw mu melni euh bo xolé waaw ñun ñun ñun jeunesse bi ñi nga xamné ne ñoo topp si ginnaawam waaw boo c'est c'est un phénomène c'est un phénomène c'est un c'est un jeune bo xamné voilà il est là pour la jeunesse bo xolé mbolo bi ñëw yëpp tay tay tay tay nga xamné boy bi ndaanaan la amna ñu top ci ginaawam est-ce que nekul ni Zarko mi muy bëreel moo yëkkati Fass yëpp waaw Zarko man dama jàpp ne yoon la yon la bu jall rek waaw ndax euh, yalla mo ndam mais ñi ngi ñaan suñu borom mu defal ñu ndam ndam bu sedd guuy waaw di wo gaay tamit ci non violence parce que voilà buñu né un combat à risque dañuy wax ni violence moo tax mais ñun voilà ñun duñu duñu duñu duñu duñu duñu ni violence waye nak foo ñu woo ñu wuyu la mais duñu wo kenn ci violence voilà mais ñi comme ni nga waxé rek Zarko c'est un champion

tamit ñu ngi wajalat benen concert bo xamné dañuy regrouper tous les artistes de la commune delta Tapée Fass Colobane def show bu mag def clip vidéo boole ñëpp tapé xol yi parce que euh doomu Fass mo mo mo moo structure bi suma né nee doomu Fass génnewu ci si Gueule Tapée génnewu ma si Colobane génnewu ndax yëpp ci même localité bi la mais ñi ngi wo gaay yëpp gaay yëpp ñu soutenir ñu ci suñu démarche ndax euh, so xolé Tim Tam Events c'est pour la jeunesse ñi nekk ci ginaaw ñëpp tam ce sont des jeunes voilà ñi ngi lancer un appel à à toutes les autorités nous avons dit que événement. 2023 2023 un festival bëgg nañ fait un concert affaire pour la jeunesse ñu les ko des Olympiades, jeux pour les enfants def remise de cadeaux y a tout y a tout Nous ñi fait des Nous avons fait des choses. nañ fait. loxo ne lan ngay wax Dakar instant. wa Dakar instant say Dakar si instant bi kon c'est le plus grand chaîne internet du Sénégal lu xew ci moment bi Dakar instant lay xewé waaw mu doon ñoo xamné ils sont dynamiques ils sont dans l'action wa Dakar instant ca kaw ca kanam rek. dakar wa boy yow lo bëgg a wax ci lamb. ah luma bëgg wax moy ci combat Ada Zarko. waaw Ada Fass moom suñu grand la suñu mag la te ndam na adversaire si yoon dafa nekk si dynamique de victoire on le faut bu ko corrigé ba léegi da gis beneen Ada Fass Zarko dëgg la c'est un athlète c'est un grand lutteur émigré na ñëw moo ñu ëpp expérience mais ba lu fa am ñoo fay def te ndaanaan mooy daan ndaanaan mais yow yaa tey jii lu wàllu loo ciy non laamu moom laamu du violent laamu foo kaf ak ree la supporteru yi dañ leen di si non violence supporteru Fass yi tamit dañ leen di si non violence ku xam aada ba toujours si communication am non violence lay moom. yow no sa di xëppee suuf kenn comprendre Pathé fii jaxasoo na fii rëb na fii rëb na Pathé Ada Fass a ngi ñëw Ada Fass a ngi ñëw waaye kenn mënatul tee kenn kenn mënatul tee kenn Fass daal trottoir lamb la Ada Fass egsi na kenn mënatul téye kenn foo sànni mbat mu toj allahu akbar waaw loolu de la xale yi way waaw xale baa ngi noonu di ñëw Ada Fass ngi noonu di ñëw Ada ngi ñëw kenn mënatul dee kenn affaire yi jaxasoo na ngi noonu ci oto bi ngi noonu ci oto waaye coow li bari na moto scooter sareet ci biir moto scooter sareet ba lépp ci biir. waaw way kooku mooy Ada Fass gaay kenn nangul ku jege otoom ñu ngi mbëkkante du dóorante buuxante bu metti moo fi am Pathé Sène ñu wiiri fi kenn mënu fee jàll ndax buuxante bu metti aja ba tey Ada Ngong di dem am live Dakar instant waaw comment nga gis ne fas moo topp ci ginnaaw oto tas ko rek waaw oto bi ak fas ñoo jiitle mu tege ci boppam boppu fas bi mi ngi ci ginnaaw oto bi nga gis ne moom jaajëf gaynde Aïcha waa mais waay jàmbaar li am tey noo ko gisee. waaw mbër la mbër la ñu àndal Zarko day jug par force. Zarko dee na bu yàgg. lan la mu ji wax boo xoolee sax na maa ko bu doole. Zarko mag la. yàq na seen carte d'identité. jaajëf. doomu Dakar bi kese la ñu topp Zarko day xaar. waaw loolu la dem waaw lu ma gis. daan loolu laa gis. amul dara dara du xew. waaw façon tey ma façon Dakar.

fukki penc yeex ñaari moy borom ada kese ada rek lañuy top eh, ada fas kese ku am loo yor na nga ñun bu am wow wow waaw waaw allah tey lii mooy li am Fass xale góor ak jigéen kenn toogul ñëpp a ngi taxaw aada Fass grand gisee li am tey waaw champion bi rek xale xew si jamono lii lii maanaam lii du du du liggéey de wërsëgu yàlla la champion la te demagul fenn xaaral ñun jar ko xooluñu ko roi des arènes la ñuy jëli roi barki Seydina Mouhamed waaw waaw Pathé bakk ba jub na Ada ngi génn gaa ngi ndox saafara saa ngay jolli Ada ngay dem xale baa ngay fas baa ngi topp ci ginnaawam ba tey fas baa topp ci ginnaawam ba tey ba tey fas bi topp ci ginnaawam ba tey foofu jaxasoo আচ্ছা আর একদিন আলাবি ডুগুনো Mbappé de l'arène Arène Dakarou Le Mbappé de l'arène waa ba tey gisul. te delloo bi loo gis. ah. loo gisee aada. aada mooy si forme de. gis nga ne indi na forme. kay. jaajëf. waaye fas bi daa mel ni gars yi may ah laajal ma ndax Zarko day xool. bàyyil la ko laajal loolu suba. ak Dakar instant yéen a ma yóbbante. waaw loo loolu booy. laaj ma Zarko ndax day xool moom. mais lu tax Zarko du xool <laughs> <laughs> bi yóbbu na fit bi. fit fit moo tax baat bi dee. nga gën a jëf. nee naa la tàggatukal dañ koy tusngal. Eh. ay poids lay ñun kuy yëkkati poids du ñu daan xale bi dafa def jar xale bi bu waree tongali ba wuti isaat ñu xam ne kenn du Ada Fass xale yi moom lañ àndal xale yi Ada rek lañ àndal Ada Fass bum rang wal jéegi dañ koy wal ba mu noo nepp bu après mu dem Grand Yoff Grand Yoff na bëri na ay ñuy jaay supp ak yooyu mu naan ci supp bi grand tenue militaire nga sol. tenue laa sol waaw. ah nu mu fa demee nii. rek jaabu duma daan. ko waaw nga defee. bul fàtte ne mag la de caméra bi. mag la mag do mag day woon place mag. booy bi mag mag am expérience. ah yow Ada Fass dañ ko tegal ak Zarko yow xam nga ñun fa lañ ah. yu rëbës lañ jógee ñëw. ñu doole Ada Fass. waaw Zarko paa la mag la. barki Serigne booy bi xoolul Zarko sax. barki borom daar jaajëf kon Paate nga gis ne fas waa ngi noonu fas bi policier yi may ñu ko mu jàll waaye borom fas bi wax na lu leer waaw waaw lii mooy li am fii tey fasu aada faas la la jaajëf grand bi rafet na bi maa ngi ko tubbee Ada Fass tuddee ko di ko ñaanal ci barki Sëñ Fallou yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy mel ni glace. mais bul ba bàyyi baaba ngi ngi nga xel ni Zarko mbëru démb lay dajeel. waaw mbëru démb la mais xa xam nga léegi xale moo koy def te Zarko boo xoolee dugg na si cinquante yi te booy bi mu ngi am 16 ans yàlla na ko aada daan ndam lu sedd guy ni glace. am nga yaakaar ne stade bi waa Fass dañ ko feesal del. incha allahu bu neexee yàlla. violence. non non violence. Grand Yoff ak Fass la ah, benn lañu ay doomu nday lañu yàgg nañu tase depuis jamonoy nawetaan jamonoy départemental ak lép yàgg nañu tase ay doomu ndey lañu. nañ ko rafetal nañ ko rafetal am nañu ay doomu ndey yu fa dëkk ñoom tam am nañu ay doomu ndey yu dëkk fii fair play rek. waa ji na jaajëf lépp bu la xool fii booy xam naa li nga a wax di ko wax incha allah Ada ngi yëngal Ada ngi yëngal ñu dem xool Aja. Aïcha Ayo Anamu aywa sama cameraman bi Aïcha ba tey ma gis fi lu doy waar tey de gisaat naa fi kagul ba tey tey kagul laa gisaat kagul laa gisaat ak i glace muy lu yéeme mu mel ni làmb léegi kagul da cee xew waaw Balla Gaye indiwoon woon tay gis nañ Ada Fass indi est-ce que kagulu Balla moo nekk fii wóoruñu wala beneen kagul la wóoruñu waaw nga gis ni gars yaa ngi sànni ba tey pare